soxna si maa ngi lay nuyu. Mm, maa ngi lay fay. tur bi naka la. Degen Diallo. Degen Diallo lan nga ci Omar mi nga xamante ne ni moom moo fi daal di bàyyeekoo. magam laa ñoo bokk ndey ak baay. Mm-hmm. gannaaw gi nga xamante ne ni jot nañu tiis bi nga xamante ne ni moo daal di dal ci seen kaw ñu leen koy jaale bu baax a baax di bokk ak yéen tiis bi ndax mën nga ñu waxal rek Omar ci yan anam la daal di génnee àdduna gannaaw ba version yi baleeroon ci côté. Euh, version yi de bari na kenn ku ci nekk ne yaa ngi wax waaye man mii bokk moom day ak baay de mënuma la wax nii la deme ndax gaañu na rek laa ci am dama doon togg ndogu fii ne jabaram ani Omar moom da tey guddee na toj ñëwul mu ma Omar boppam day metti ka de ah, kon soosal ko mburu bi yóbbul ko jox ko sama doom bi woorul mu yóbbu ko ba mu demee mu ñëw ne ma fëgg naa ba sonn kenn ubbiwul man kon da jaawale néegi Adama jox ma sama téléphone jëkkër ma woo ko ko composé sama duulum bi sens na damay rosi moom mu composé mu sone ba sonn jëlul man kon yóbbu ko balaa mburu bu diggee jëf mu dem ba mu ñëwee yuuxu la fi indaale man mi di wax ba tey gis ma man nu mu mel. Hmm. leneen lu ma la ci wax lu dul loolu waxuma dëgg. ñu si bëri comme xibaar yi nga xamante ne dañu ko daal di jot ñu ne Omar dafa daal di rek xaru kon yéen ñi nga xam ne yéen ay famille mënuñu leen confirmer loolu. ah man de dégg duma ko confirmer ndax kuy confirmer da ngay confirmer loo gis ak loo fekke waaye fekkew ma ko gisuma dugguma néeg ba bañ dawee ñëw dañ ma bloqué si porte kër gi yéeguma sax ci kaw ci bunt bi sax lañ ma bloqué man foofu laa yem ma wàññeeku ma ne lan la dafa dee ñu ne déedéet daa fat noonu laa caam mhm. jotuma koo gis de barki démb laa gëj a gis ci guddi ñu jot information que tamit daal di day bind li nga xamante ni moo di lettre daal di fiy bàyyi ndax loolu tamit information bu wër la wala. <laughs> man mi sax gisaguma lettre bi de yàlla xam na ko gisaguma dara ay rumeur daal xam nga fii Sénégal la nag waaw kuy bañ doo fi nekk rumeur moom fi lañ ko fekk da yàgg na fi waaye daal nañ ko ñaanal daal fam nekk gënal ko fii mu jóge yàlla oyofal suuf ci kawam leeral bàmmeeram ci barke Mouhamed ndax nekkeewu fi woon lu ñaaw de nekkeewu fi woon tamit lu bon sama rakk la respecté woon na ma safoo woon na ma faale woon na ma dëgg yàlla. Omar man de 36 ans la am comme moom sax xuma ñaata la war a am kon. jot naa am soxna. am na soxna kay. yàggul dara mi ngi si biir. bañ ko ciitalee léegi yàggul. ci wala ci ñaata semaine. man de maa ngi dégg ñu naan am na deux mois une semaine xaw ma deux mois dix jour daal maa ngi dégg ñu koy wax waaw. Omar moom taxawaayam ci kër gi naka la nekkee woon fii ak yéen. xanaa yaru ndax fii sunu kër bàjjen la mook sama papa bokk ndey ak baay ma fiy sëy moom na mu nekk sama rakk sama sunu waa kër tuxu tuwaawoon pël léegi nag moom fii la liggéeyam nekk. foofu day sori mu ñëw nekk fii ci biir kër gi ak ñun nekkin bu rafet respecté mag ñi respecté xale yi xëy wàcc laa daa nakari dere nag daaw tooñ kenn du tooñ kenn du dugg ci yoonam newut rek la woon na tranquille am dina kaf tamit dina ree am fulla tamit si boppam lool toxul cigarette toxul yàmba naanul bière jëlul yëfu jàmbur waaw gannaaw ba ñu la woowee ne a sa rakk ji daal dinay génn àdduna jotoo ko gis ndax bi nga xamante ne nii avant moo génn àdduna jot ngeen a waxtaan yéen ñaar wala kañ nga ko gëj a gis. jotuñoo waxtaan man barki démb lañoo ñoo si daal dem heure reer bi ma woo téléphone sama nopp ak noppam ma ne ko Omar kaa ñu reer mu ne ma dégg suur naa man ko yore sa waroo sa ñaari cin xam naa looloo tax waa baax na loolu lañ jot a waxante. la expliquer ndax dafa am problème ndax dafa am lu la naqari wala lenn loo xam ne waxtaanee jot ma wax loolu yëpp waxtaanee wuñ ko de xuma dara naqariwu ko fi ndax nekk ak sa famille dafa neex am na ñu bëggoon a nekk ak seen famille te defuñu ko waaye fii la nekkoon ñu nekk si jaam nekk ci salaam di ambiance di kaf di ree ñu sekk jaam ak ñépp ak salaam am fekkeen xaar ma yàlla nag. ñun ñëpp si jàmm lañ doon dund loolu daal xanaa lu waroon a am rek la waa mais jotu doon benn feebar jotuñ ko yóbbu fenn. déedéet loolu jàmbatu ko dara nag kariwu ko dara mettiwu ko tamit xam nga àddina ku nekk ak yàlla nu muy bindee sa dee rek noon la waaye du leneen. d'accord en tant que magam ban yëg-yëg nga am biñ la woowee ne la sa rakk ji daal dinay génn àdduna nga ñëw tamit te gisoo ko sa gisental bu mujj. ah loo kay kon xam na ne metti na. rakk joo waxal barki démb kaay reer mu ne suur na nga xëy laaj ko jabaram mu ne mi ngi néeg ba dem yóbbul ko ndogu fekk ko fa fekk ko mu gaañu xam nga ne loolu dafa metti si xol waaye sant yàlla rek na àddina moom gën a bees la moo fi am gën a metti moom am fenn ndaxte ñun ñi man mi di wax sunuy mag yi bëri bàyyeekoo nañ fi gaañu te raw ñu toog di ko muñ tey nag bésam la suba keneen ginnaaw suba keneen waaw li ci gën a marqué de bari na ndaxte fi làng ceetam ma làngal ko ñu xew loolu daal bokk na ci lu ma gën a marqué mu dem tam bàyyi fi xale bu ndaw dafa metti mhm. looloo ma ci gën a naqari daal dox mu jaambur jum fi bàyyi waaw. Mhm. jërëjëf ñu ngi la koy jaale bu baax a baax di la ma saw kàddu gu mujj gi lan lay doon. guddi mu jug damooy nañ ko ñaanal rek yàlla yokk leeram ay fal suuf ci kawam ñun ñi fi des tamit yàlla di gën a leeral sunu xel di rafetal sunuy xalaat ñu yàgg fi di ko ñaanal ci barke Mouhamed ok jërëjëf kilifa gi maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay soxna si. tur bi naka la. Abdoulaye Mbaye. d'accord Abdoulaye Mbaye lan nga ci Omar mi nga xam ne tey moom moo fi daal di jóge waaw maram naa ni sama frère la sama xarit la ñoo defandoo suñu enfance yëpp wax dëgg yàlla. Mhm. gannaaw ba ñu la ko jaalee yan kàddu yu seede rek nga ñu mën a wax tey ci sa xarit bi nga xam ne moom moo fi daal di bàyyi ko. waaw li ñu mën a seede ci moom bari na lool sax wax dëgg yàlla parce que nit ku baax la nit ku jullite la nit ku dëgg la te li ñuy wax tamit nit ku intelligent la macha allah wax dëgg yàlla. waaw nit koo xamante ni il est compétent daal waaw barina ci domaine yoo xamante nii soo fu duggee waaw mën na la cee dimbali lu baree baree baree baree bari wax dëgg yàlla ñun ñi dañ doon inspiré wu ci moom lu baree baree bari malgré liñ foogandoo yëpp mën nañ ni il est le plus intelligent que si ñun ñuy ànd ñun ñëpp wax dëgg yàlla waaw kon naka rek nga yëgee xibaar bi nga xamante ni moo dal ci seen kaw ne seen xarit boobu daal dinay génn àdduna. waaw xibaar bi nag li ma ko yëgee mooy parce que man jaaxal na ma trop trop trop sax ndax ñun ñoo nekkandoo atelier di liggéey man ak sama beneen copain bi di ñëw foofu noonu parce que ñun foofu mooy suñ grand place sax souvent bu demul néewu Omar mais foofu mooy grand place atelier ba. ñëw na fa mook soxnaam ñu ànd fa tombeek soxnaam daam ñaw yuñ ko yóbbante woon dëkk ba pour ñawal ko ñooñu mu ñëw fa ñoom ñaar ñoo fa ànd vers 18 heures 18 heures et demi ñu toog noonu après soxna si dem mu des fa ñu toog noonu atelier di waxtaan ba mu yàgg mu ne booy maa ngi dem gàlle ndogu ji waale nga toog fi nga toog du ndogu yow paree goo ndogu sax ñu ñëw ne la diw gaañu na presque bokk nañ ci ñi mujjee giseel daal moo dëgg yàlla hmm. tey yan souvenir moo la gën a marqué ci sa xarit bi nga xam ne tey moom moo fi daal di jóge waaw bari na trop trop parce que man Mbàkke laa nekkoon di fa liggéey mais mën naa ne depuis ba ñu ñëwee fii toxu si fii parce que Jaksaaw la nekkoon mais presque sac vacance fii la daan ñëw ñoo fi defandoo suñu enfance yëpp après lañ fi toxu si ñëw mais man maa ngi woon Mbàkke su ma ñëwee tamit ñooy fanaan man ak moom presque trois ou quatre mois yëpp li ma fiy def ba ni may delluwaatee néegam laay fanaan duñ tàqale ko man moom. Mm-hmm. lan nga xalaat ne moom moo ko poussé ngir mu def jëf ji mu def maanaam xaru ci ko xamante ni jàng nga euh, am nga bak takk nga jabar dubul yàggul ci ñetti weer rek la toll euh, tey nga xeexee rek say mbokk dégg ka ne seen doom daal dinay xaru. waaw parce que nekk na lu bett ñëpp lu jaaxal ñëpp ci quelqu'un koo xamante ni il est très très intelligent wax dëgg yàlla jaaxal na ñëpp ñëpp ñëpp. intelligent ba pare am jabaru e, boo xamante ne mi intellectuel la moo ngi université fi ni ne nii di jàng fi may waxee yow xam nga xale bu ndaw tamit wax dëgg yàlla jaaxal na nit ñi trop trop trop trop lu ko war jabar ji mu ngi université nii tey jàng moom it pareegul jàng sax fan yee passé rek lañ doon def examen ci biir koor gi wax dëgg yàlla mu nekk affaire bu jaaxal nit ñi trop mënoo ko sax imaginer parce que yow nga foo ko xamee rek da naan kii yow nan la war a mën a defee lii nii wax dëgg yàlla mënoo ko xam peut-être nag dina am souci yoo xamante ni mënu ko partager ak kenn ba mu waral mu def lii mais wax dëgg yàlla dans la vie moom il faut savoir partager ak lépp lu mënti doon rek wax digg yàlla su la suñ borom dénkee ay nit tee ko partager ak ñoom te wax dëgg yàlla ñun mosuñoo nëbbante suñu biir dara dara dara ñun ñëpp. ku ci ne xamal nga sa borom lu baree baree bari mais wax dëgg yàlla li ko poussé à ce que mu def lii moom loolu ñun ñëpp kumpa la nekk si ñun dëgg yàlla. merci beaucoup jërëjëf ñu ngi la koy jaale bu baax a baax di la ma saw waaw jërë ngeen jëf yéen nit ñu ngi leen di sant comme su ko suñu frère yi waxee rek ñoom ñëpp wax dëgg yàlla di rafetlu seen liggéey parce que tamit li ñuy wax rek àdduna nit ki balaa nga yëkkati dara di ko wax tamit war nga dem au fond am ci ay information yu légal ba nga xamante ni lii moom moo xew nga doog ko mën a publier mais ñu ngi leen ciy sant leen gërëm di rafetlu seen taawaay di ñaan yàlla sil bi nekk ay télé télé wax dëgg yàlla ba ñëpp ñu ci xaj mën cee jëriñu daal incha allah jërëjëf